xëy dëxëñ waaye it jotaayu xibaar bi monsieur le maire bu gox kumbam lambanda Cheikh monsieur le maire bu Géejawaay naka yow. yow gaa ngi nii naka tey. sant euh, naka gox ba. waaw gox ba nga fa euh, weekend bi fan la woon. <laughs> weekend bi moom euh, ñu yi rek. si tournoi yi ngeen nekkoon ci weekend bi waaw démb weekend bi moo aye. waa Gunaas. démb dem nañu Gunaas final bi. Mhm. jóge fa dem ci waa Pastef. ah dem ngeen ci waa Pastef. voilà ñoom Gassama. copain uh-huh. waa Pastef yooyu nekk Gunaas. Uh-huh. dafa dem Brioche Dorée ba 3G. Uh-huh. dañuy lancé seen benn film la quoi. 3G lañ ko doon yor télé waaw. ah ok. yor télé ci góorgóorlu ñoom Modou Ngom ak. ndeysaan ndeysaan c'est bien. Ah, c'est bien. en tout moom neexoon. faw ndaw yoone seen bopp. waaw ah, final moom. neexoon waaw final ba neexoon. baa mel woon bu AS Pikine bi. déedéet déedéet AS Pikine bi kon. daal bi na <laughs> yàlla baax na. seen bés am na ah. si jàmm ci daal. kat. kay moom dafa neex. ah waaw dafa ala daw paree bi yankoo ba bañ na ko ba indaale ay simba kii bongo. fii da ngeen doon festival wala. <laughs> <laughs> journée culturelle la woon wala la. journée culturelle ah en daal neex na. Ah. waaw bii di ñëw nag. Sam Notaire mooy aaye. waaw kon baax na. yow Sam Notaire mooy aaye. Mhm. parrain bi nag Aline Diaw la. kon na waajal. waaw bu jëlaay simbi kat. Fara Diaw Fara Diaw ma jox ko eh kooku di waalo waalo. kooku ñoo Assane Thiam yooyu ngi a ah kon ci ay peeg. moom mooy euh, euh, fan la ci woon bi bii gunaas la. ah c'est bien c'est bien c'est bien noonu la. noonu la di ana sukki sukki yu lañ la soxla <laughs> lii mooy 3 euh, trois trois g bi mooy film bi waaw après ñu ñu andi ko seen TV ñu xool ok ni ngeen def mhm. ni ngeen doon def kon kon baax na kon baax na sukki yu ko ay <laughs> loolu yëpp loolu yëpp ci weekend bi ngeen ko doon amal Ah, kay waaw mais noonu la noonu la foog ngeen fekk ji askan wi fi ñu jëm dafa laaj renfort ñu koy nuyu baax président Mali Gakou waaw président Mali Gakou bii fan la woon ah moo nekk nii ah borom tagal yi yëpp si nañ ñëwoon ah, def def nañu fi ajaratu ngoone ndooy de ah, tagal tagal yi kawe yi waaw yooyu baax na de waaw moom da aj ñetti étage moom lay def mu ngoog waaw ñi mooy waa Pastef yi moo nekk noonu. foofu itam demoon ngeen fa. programme yu kenn bee nekkoon noonu. nañu wàññi courant hmm. <laughs> kon baax na mu ngoog président Malick ñu koy nuyu bu baax ah. ak euh, sa directeur campagne Khalifa Sall. aatu. ah Khalifa Sall ah. nekk aatu. aatu aatu aatu réer na. Eh, aatu xamu fu feeñoon na waaye tamit moo nekk noonu. gis naa ci benn journal sax tey dañu ne taxawu Sénégal léegi instant bii mos a la mel. affaire yi dafa xajam trop neexatul de. ah déet waay. waaw ndax taxawaayu xaafa tax. ah nu mu ah, taxawee. ah xaaf kat daa soppeeku aatu. Ah. <laughs> taxawaayu lan. aatu réer. <laughs> taxawaayu aatu. waaw. <laughs> gis ngeen boo leen gisoon monsieur le nu mu def taxawaayu lan bu aatu. acca acca acca acca aja Bamba Fall maire bu Médine sama directeur campagne ñi koy nuyu bu baax ah ajaratu Ngoone Ndooy ak ah, Aliou Ndoye jël yoo xamante ni xamee ma leen jën ci ñoom ñaar rek <laughs> l'honorable député Demba Diop si xaritu taalibe ñu koy nuyu bu baax ajaratu ay dañ jong miin milliard yaa comme papa ah, nañ ko Mamboy di bi mooy dernier semaine da jàpp ci rek na nga def ba vendredi daal moo xam naa ne hmm. ay dañ jong jotulee ñu daal di koy génne waaw ci jeex bay di sëy waaw ñu ju baax yaa ngi noonu kooku moom wax fa dëgg neex na baax baaxkat bu mag sama rakk di baaxkat na ma sagalee sax ëpp na ah, waaw waaw ndax euh, waaw ñu ngi nuyu baax en présent ah, Doudou Wade ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ah, mu ngoog Sen TV l'officiel gis nañ leen monsieur Goudiaby génn na monsieur Ajaratu Lalla Aïcha Fall borom xam nga ne kooku mënul génne sa kii bi sa femme bi ndee la ndey Ndiaye madame Fall madame Fall Ibrahima Bari moom dugg na ñoom ñëpp dugg nañ mais nag gis nga tey jii laa leen di génneewaat waa waa CDR xaw ma CRD. R dama leen di Bari mënuñoo génne. dama leen di génne de. ay sponsor lañ ci matinal bi moom dama leen di génne moom tey. <laughs> topp seen TV officiel ñoom Fama Ba ñu ngi lay nuyu bu baax. Ah, Tina Dimen ndax ñoom um, bari nañu lool nag. bari nañu lool nag. maa ngi leen di fay maa ngi leen bu wér. ayca yéen a kaay groupe D-Media bu fekkee jàppandi na maam Sidi. ayca. ayca ñëw ak ñun ci. waaw kay. lu mu wax lii leer na di doom day macha allah. ah ni baax ah. wax nii la de. day leer. nii la de. rapport yaa ngi corps de contrôle yaa ngi nii. Mhm. rapport yi nu mu gën a bëree mu gën a nekk zéro. tey autant de rapport pour rien. <laughs> dégg nga xam nga bu ñu naan 1 plus 1 égale 2 plus 2 égale 4 plus 4 égale. ñu gën di yokk xam nga day rapport yi corps de contrôle 1 1 plus 1 égale 0 2 plus 2 égale 0 maanaam chiffres yi looy gën a additionné. mel ni kuy multiplier par zéro. mi bi loo ko booleel zéro lay doon. xoolal li ñu gis ci anam. Mhm. bu Maodo Malick ak ASER. Mhm. ak CICES. Sénégal ak 187 milliards ak ah. daal ci dëgg-dëgg daal nee nañ daal li mu bëggoon sax mooy changé nag doxalin Pape Alé a génne na livre ba. génne na téere bi. dégg loolu. scandale au cœur de la République. yoreen gu bon wala ger waaye Cheikh Oumar Anne nee na Pape Alé bi. ah kon ku ko bind. nee na ko nee ay ñoom moo di ñaar ak ñoom Nafi Ngom Keïta ay maître chanteur lañu. ñoo bind ak ñeneen ak ñeneen mais Pape Alé deful kon waaye teewul préparé la. Oh. <laughs> Sud Quotidien ñëwal gi ci. <laughs> gars yi ñoo inspiré maanaam corps de contrôle état bi. Ah. dañoo dem ba amatuñu benn crédit bi. ñoom. rapport bu daan génn gars yi ni ko doon xaaree comme basket rek rebond bu bu dee tëj gars yi na. rebond. mais léegi buy génn nii nekkatul événement. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci wàllum yorin gi institution publique yi ak 2017. Mm-hmm. caisse de dépôt et consignation fanweeri milliards. ngir defar ab tour ci mamel ay étages. fanweeri milliards. waaw waaye ne leen euh, euh, euh, enquêteurs yi xamal daal mooy. seen lii amul benn njariñ. doy na waar. waaw parce que def ko ci logements sociaux daal dëkkuwaayu ndimbal njaboot kii vraiment trente milliards yoo xam ne fii ba juróomi at du am benn stocké. doy na waar de. benn njariñ. doy na waar de. waaw ni daal. xoolal kii directeur u CICES. Mhm. week yi mu doon def à l'intérieur du pays sax CICES moo koy jël en charge. week-endu boppam doy na waar doy na waar. boppam. maa la wax li kon baax na enquête yéen kaay ñëw ak ci Moustapha Diop. xam nga Cour des comptes yi dañoo ñëwoon ca ministère ko pour xool. mu ne. mu ne leen du fii. ah maanaam journal bi bind na ne Moustapha Diop fu nekk nii dafa défier magistrat yi. sampal leen dënd la def Pape Alé Niang ngi nii ak livre bi ak Cheikh Oumar day na waay le nañu gis nga livre Pape Alé Niang boobee ak Cheikh Oumar Anne. Hmm. journal bi nee na. ana maam Sidi. le quotidien ma jox ah waaw waaw waaw waaw. ba ko yore ngoo hmm. xam ne ku bon gi nga xam ne moom la Cheikh Oumar Anne yore kër ga. Cheikh Oumar Anne nag li mu xam ne mooy dana porter plainte journaliste ak na fi moom kay daan. kon baax Mohamed Boun Abdallah nag li mu wax ci rapport OFNAC bi looloo doy waar. mu ne bu ñu jot jël na ko bi Gossas la ko waxee la ko le quotidien yéen kaay ñëw ak ci. Eh, ah, ah non bii la la bii ñëwal kon kaay kaay kaay indi libération. wala ñu dem rek ci les échos. les kon ñu dem yorin gaa ngi nii ah, waaw kay dindi na ko. Ah, les échos <laughs> waaw kay. Uh-huh. dafa setal Aliou kon baax na. daa setal Alioune Sall ba mu ne te eh, set wet ba pare ne nañ leen topp Karim Wade ñu lee loolu la wax déggoo ma de pétroti hmm. of nag dafa setal Alioune Sall daal of nag waaw suñuy karsan bi kon setal na ko waaw setal na ko ba mu set bu kenn laaj kenn amul benn élément boo xam ne nii maanaam mën ngaa làmb daj kon loolu lañ tax ba Aliou mi ne nañ koo mën a topp ay tuumaam nangam parce que contrat Petro-Tim bi rek dañ koo ànd ndaxte waaw a wala mu war a am le premier nga arrière bi ne le vingt huit wala le loolu mooy ànd date. ah kon baax na. dégg nga ma ne wuy ma date ci boppam moom am amul te loolee nag nee nañu Karim Wade mi hmm? la wax loolu ay date boppam la. mi ngi nii te nag mën nañ leen caa toppee faux et usage de faux. doy na waar. Hmm? te giraawaali boobu xam nga kenn ku ci dimbali. ok nday associé ak Joseph Oufam Mbembe. ñii ñu nu xam nga kii. Joseph Oufong Medoumi. mooy joxu kon mi ngi nguuru nii. Ah, nga dëgg. <laughs> ñam nañ. ñoom nay dégg loolu kon Aliou Seck la dégg Karim nag nee nañ daal léegi ah, ba mu seet euh, laay nañ dem rek nañ dem rek léegi si ko yéene kaay ñëwoon ñun ci ASER gis nga ko nag bu jigéen daal la ko ay directeur seen yoon jigéen ngacc di rat di rek di rat rek di rat rek cag cag cag cag ñoom daal di rat dégg ay téeméeri téeméeri millions yoo xamante ni nii ay marché yoo xam ni teguñu ko fenn fu dul ci ay boobu ak ay lettre de Mm-hmm. ay village yoo xam ne monsieur le nee nañu mm-hmm. électrification rurale. rurale dëkku taw bi waaw dëkku àll. ay village yoo xam ne nee nañu def nañ ko courant ba mu ne booy. te dara mm-hmm. nekku ci dëkk. village fantôme. mi ngi nii kuy jabar ñu jox la prix. dañ eh, foofu neex na de. neex na de. neexoo waaye loolu yëpp dara gënul neex. enveloppe bi nekk ànd li gën a neex mooy président conseil d' administration bi ma dem lu mu def. ñeenti millions. day fayam. en toute illégalité. ñeenti millions. 4 millions. source année 2 millions la war a laal la décret wax. ñu doublé ko mais 4 millions lay laal bu ñu waxee mu ne décret bi boo ko. ah kon baax jamono ñoo xam ne yow ASER bi ñu dund ko ay jafe-jafe. Mhm. scandale mi naan de Pape Alé Gueye gi ñuy toog nga ñëw fii APDA. Mhm. fii nag moom moo gën a neex. yaataa yu am na journaliste buy laal 130 000. ah Dadi Bibson 250 000. Dadi Bibson noonu seen petit gàll 500 000. dégg nga ma de chauffeur directeur deux cent mille may mun a jàll un million huit cent. très bien. tojaa ngay jeexul ba léegi nii. <laughs> ASEPEX a ngi nii ak docteur Malick. ah moom i ñam na. lu ëpp juróom benn million lay laal mission ba teg bu bis bu ne bu demee mission mission juróom-ñaari mission cette mission xoolal mi ngi nii. indemnité journalière. kaay hmm. fii offort a ngi nii mu ngi nii. office des forages ruraux. moom it rëccul. scandale lancé na gaañi saxo bàyyi. tey déggoo ma di. giraawaale yaa ngi nii. 2015 2016 358 millions léegi mbir mi yegg na ci 500 et quelques millions masse salariale ci. ka ñu recruter comme comptable jigéen ñi jël sa bi gars yi déposé seen i mais madame moom la ñu jël dégg nga taxawu Sénégal ak yéen ñu doxatul <laughs> kenn ko taxawaayu aatu la. laa si yéen kaay ñëw ak ñun ci buntam. Mm-hmm. lu garaaw. lu mu wax la wax. rapport boobu nag bii mu def ci kuréel. Pape Alé Niang mu ne lan Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na. gis nga rapport bi ki ko def nekk na du sa du Sénégal. xam nga dañoo yaakaaroon Nafi Ngom Keïta te du loolu la ñëpp wax. waaw mu ne du Nafi Ngom Keïta. benn français ci boppam moo def rapport. xaw ma kan moo ko recruté mu ñëw defal ko rapport ba pare après démissionné daal di bàyyi. nee na ab tubaab la. daa été recruté. loolu tamit lu mu. Ah. moom moo ko wax. nee na ci dëgg gi ci boppam la gaa yi toog. maanaam li gars yi publié loolu amul <laughs> nag man nag nekk nii jaaxle ana rapport bi waaye ñu ne ab tubaab moo def rapport rapportu Sénégal te of nag moo amoon ab doomu Sénégal bu ne ca kaw dafa rapportu jàmbur lu ci lu ci keneen doon ma ne état ba war a démissionné Dakar Times nañu Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na réew dafa ay góor ak ay jigéen yoo xam ne dañoo bëgg sell sell loolu yàlla yàlla lu te duñ ci mm. il y a beaucoup de faux saints et de fausses saintes. dégg nga ma ci réew mi non. exclusive yéen kaay bi waa kër Ablaye mm-hmm. gis nga lii bu doon championnat la. championnat sàcc maanaam ñu teg championnat. ku ci raw gàddu gi. ah bal waroon na fay am. <laughs> bu fekkoon bu fekk. <laughs> <laughs> ana bi <laughs> te loo te loo zong la ngay wut <laughs> taxañal soleil jëlal benn rek nga taxañ nga tël tey nga ne nga ne bu sampir bu doon rawante sàcc non se gis euh. nii nii nii nii nii gis nga woon ñeneen ñi waa Kër Macky ñooy waa Real. tey championnat sàcc ñoom ñooy football classique. derby. nii derby. waaw. kii nii lay jaar kii sàcc yaay. ñoo ngi wu ñu ngi nii sàcc faux diplôme. xoola kanam magouille. eau de faux. association de malfaiteurs. alal du lewul. cour mm. bi daal fi nekk nii li muy sàkku daal mooy. Mm. ñii nañ leen topp. saxate dafa leer. alalu askan wi leen jël kon daal di koy tax a mais man man li ma jaaxal mooy rapport bi 2015 16 17 la ñu wax. waaw te Ablaye dem na depuis 2012. 12. waaw moom waa Kër yi lan lañ ci. moom a jaaxal journal ñu ay sàcc. faw ñu rax leen ci. kër Ablaye ñoo dàq a sàcc. waa kër nag moom ñoo. classico baa ngi nii dégg nga. classement baa nekk. classe oh classico mooy comme comme Marseille Paris. ñoo nekk nii. wala euh, Barça Real ca ca instant. championnat sàcc bu ñu ko defee. kenn du ñëw ñooñu ñoo gën a ay ñooñu ñoo ñoo ñii ñoo dirigé championnat sàcc. bu bu doon mag kenn desewul si ay loxo. ñii rey nañ leen bu yàgg. <laughs> ñëwal 24 heures yéen a kaay ñëwal ñun ci euh, Omar Faye leeral askan wi. leeral askan wi waaw. nee na suñu dëkk nag guddi ñu toll ñu ngi dund guddi yu gën a lëndëm ci dundam ci lu jëm ci wàllu yoon bi. Mm. kenn mës na gis lu mel. doy na waar de. la wax. salte. doy baa ngi nii ASER ak OFOR. <laughs> yore ngu salte ngi nii. xoolal PCA bi rek ñaari millions. lay laal. ah nii. ñaari millions lay laal. lii lii ah. Hmm? doy na waar ñëwal direct news ñëwal ñun ci ñoo lànk gi nii. Hmm. évolution la boo xam ne day dana tekk de waaye gars yi de ah. doy na waar xam nga politiciens yi dañoo bàyyi place. arrière dem toog mouvement de jeunesse xam nga li ñu naan la nature à l'heure du vide. Hmm, gis nga politique bul gédd bul bàyyi. bul siisu. bu bul siisu. booy gédd rek gars yi di jël di seet wala di jël. dafa leer enveloppe ya dem ak moom. dafa leer politiciens yi nekk nii toog ñu toog seen kër. mouvement de jeunesse moom. remplacé ñu seen bopp. yàq na. Mhm. évidence yéen a ñëw nii ci ndey Kike Ndiaye. Mhm. clinique ndey ba. journal bi nee na gis nga ko maa ngi rëdd sa laal sa dajale ne ñëpp. est-ce nekkul ne waa Thiès nag ñu ngi doog am seen ministre ñoom. Tické. ah madame Sow sa Diop yoonu tam ma nga ca. Mhm. grand place yow ñu ci Souleymane Ndoye tëngeej la de. waaw waaw waaw loolu tëngeej la. voilà mu ngi nii. Mhm. gis nga ko noonu. moo ne noonu ñoo ngi ci clinique ba ba léegi. le soleil yéen kaay nañu gis na set setal gi nag dëkk bi dafa mel ni ñu ngi commencé di bokk. pour set setal dëkk boobu seetloo politiciens yi donc ñoom ñoo fa nekkoon daanaka. ñoo fi nekk doon nekk askan ñu ngi commencé bokk. bokk su boobu li ñëw ak ñun ci. Mhm. gis nga ko nii. voilà Youssou Mbargane gisee. Youssou Mbargane. Youssou Mbargane day nee na fi nekk nii boo bëggee dégg-dégg société sénégalaise bi ci boppam day tàggoog sagoom genn xeetu tàggoog sagoom boo xam ne kon maara day daal. waaw pipeline yii nga xam ne nag ñooyu saar bis bu ñu explosé. Mm. lii gaz bi ak ñoom seen yooyu di jaar yooyu di xeeñu pétrole ak ñoom seen ak gaz yi yii di jaar ñu suuf xamal Dakar ci la toog daanaka bis bu galaatee nee na lii des ci Dakar du bari yàlla ci yàlla bis. alhamdulilah mos boobu la mos a la ñëwoon moom docteur la. Mm-hmm. sëñ bi dee nii docteur la. nee na fukki at ak juróom-ñeent ngi nii. Mm-hmm. mu nekk médecin wu góor jigéen yi fii. moom docteur bi waaw. waaye góor jigéenu Sénégal yi daal quatre-vingt pour cent yëpp. Mm-hmm. bisexuel dañu am jabar am doom am ay doom. te moom yàgg naa participer ci ay mariage góor jigéen am na ci ay kilifa ay punkal yu ma yoo xam moom docteur bi. waaw Bougazelli nag yóbbu nañ ko infirmerie daa daal malaise. ah moom la journal bi wax moom Bougazelli. ndeysaan des na benn réew mi. ah réew mi ko dijee maître Moussa Diop nga nga ci nga ci. maître Moussa Diop gi noonu nekk na daal euh, syndicaliste yi nekk Dakar bi. Hmm. Mahmoud Saleh moo leen di manipuler. Mahmoud Saleh. waaw monsieur président. xaw Mahmoud Saleh day kóolaa ku nekk wàcc. Mahmoud Saleh. Mahmoud Saleh moom ku dugg ci ay caayam moom wàcc. <laughs> aji Bergan Kado te nag moom sa waay ci tribune yéen a kaay nee na maître Moussa Diop li mu def ci ay fautes bu rëy. moo tax. waaw ñu naan waa kon moo tax ñu wàcc ko. ah c'est ça. jël Moustapha Diagne teg ca kaw. waaw sama baax na kon baax na kon baax na. ñu nii maître Moussa Diop. ah kon Mbergane Kanouté moo nekk noonu ci kaw. Ah. moom duggagul ba léegi. Adjaratou ah, Mbergane waa non non non duggagul. Ah. na après ñu xool après. sponsor yi yàlla baax na tës bi. xoolaat defaat casting. xaaf kenn gisatu. aatu naa woo Ndiémé taxawaayu aatu lañ taxaw. def mu xaaf kay dama koy génne <laughs> na waar. xanaa gàkku ngi def tournée wàcc ci terrain bi. donc nag xaaf nag. chef de l'opposition tam gisatoo. non xëy na day noppaloo ko ba ci kanam. Ah, ndaamal kajoor. moom moom moom la moo jaaxal ñëpp. soo ko dégg ci moom. kii soo ko. <laughs> bàyyi bi la ci kanam. jox booy. dafa bàyyi fu moom moo ko nit daal boo bëggee place jàkkaarloo war a wan askan yëpp ne man kii. moom moom laa soxla. damaa bëgg mu julli. combat boobu lay yóotu. loolu lay dëgg. test loolu lay dëgg. waa tey day day. interdit au moins de. waaw dañ koo ajoon keroog bi ma la fi waxoon noonu. Hmm. ajoon doon ci defaat ay enquêtes. ma lay naa la xaw ma buy def ay bagages am est que du rey doomam. waaw dañuy doom yi téye di dóor ci miir yeeg ñu ne ba dëkkandoo yem ci. léegi. Ah, xale ba day bu dee bu dee deewul fii ma taxaw nii. ah kon nañ nañ dem gëstu ji loolu dafa dooy waar loolu faw ñu gëstu ji ko. yàlla baax na ko monsieur le maire. aywa rendez-vous ëllëg. waaw ba suba. 89 point 7 monsieur le maire ak ñoom yi àndal seen émission tës waaye revue de presse bi rajo di ngeen ko dingeen ko fa am man ci kanam di kaj ki leen xibaar yi faram-fàcce ko mu jàppanti. door laa beex Sen TV mbokk yi daal leen jàmm jotaayu euh, xibaar ñu fës kee nekk ak code bi nga xam ne dañu ko jagleel nañu war a jëfandikoo gaz bi fii ci réew Sénégal bu sukkandikoo ci kàddu yi euh, ab